Bienvenue sur Salam Vision. Ya Rabbi la ilaha illa la. Auzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. la xawla wala quwata illa billahi aliyil azim rabbi ishrax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli wa baadu nuxayikum bi taxiyati islaamiya naqulu lakum asalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ginnaaw bu nu delluwaatee sant yàlla julli ci seydina muhammad ñaan yàlla mi nga xam ni kenn amul pexe ci mooy wala nga am kàttan ci jëf lu dul sob na borom bi subhaanahu wa muy laa xawla wala quwata illa billahi alil azim doomu aadama bu defee mu sotti rek ci kàttu yàlla la waaye doomu aadama mënul dara waaye delluwaat di ko ñaanal rek di yent yàlla Musaa ñaanoon muy rabbi ishrah li sadri waaye sir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yàlla fecc suñu làmmin waaye teel ñu boppam waaye xëy ci boppam ba lu ñu wax rek mu saf yàlla waaye saf doomu aadama yi wa tabarakallahu di leen ziyaara di leen baalu di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di jiital ci bi fa tabarakallahu xalifa général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour atalallahu umruhu wa ayadahu nasara di ko ñaanal yal yàlla dolli guddal fanam yal yàlla sàmm ko yal yàlla wattu ko mission bi nga xam ni moo ne ci loxoom di mission baayam di mission maamam di mission sëriñam waaye di mission yenentam waaye di mission borom bi subhanahu wa taala tabarakallahu noonu la ñuy nuyoo xalifa général des des mourides Serigne Mountakha Mbacké atala umru wa ayyadahu moom it di ko ñaanal comme ni ñuy ñaanalee fa tabarakallahu Serigne Babacar Sy Mansour gis nañu taxawaayam fa tabarakallahu ci réew mi gis nañu médiation bi nga xam ne mi ngi koy dox ci homme politique yi te xam ne lu dul jàmm jàmm moo ko gën mu mel ni kon moo ngi waaj ñëpp ci jàmm wa tabarakallahu di koy ñaanal rek bu ñu waxee ne mooy sëñ Tuubaa kenn du ko weddi ndax laysal fata man yaqulu kaana abi waaye nag walil fata man yaqulu ana sax kon di koy ñaanal rek yal na yàlla dolli guddal fanam ak mboolem xalifa ci kaw suuf wa tabarakallahu di leen nuyu di leen ziar di jiital la ci nuyoo bi ki nga xam moom mooy directeur télé bi wa tabarakallahu di Serigne Sam Seck di koy ñaanal moom it yal na yàlla taxaw ko fii télé bi bëgg àgg yal na fa yàlla àggal yal na yàlla ibbi ko defal ko wërsëg gu yaatu yaat ba ñëpp xaj si bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu fa tabarakallah fi nga xam ne fi nekk nii tey di suñu kër yaay Tante Penda Seydi di soppee Serigne Babacar Sy bëgg Serigne Babacar lool moo jeex tàkk ñu fas yéene defee fii nii émission plateau spécial bu Serigne Babacar Sy bi di ko ñaanal rek yal na yàlla guddal fanam di ko ñaanal teraanga yi yàlla mu ko ump yowmal xiyaam sopp gi mu sopp Serigne Babacar fa tabarakallahu du umpe te xam naa bu ñu nee ba ci biir oustaz yi daañu leeral waaye jàngkat yi fa tabarakallahu ñoo ngi fi di nuyu fa tabarakallahu suñu naataango yu ñu toogandool fii bokkandoog ñun Salam Vision ku ci mel Oustaz Mouhamed di ko ñaanal yàlla yàlla dooli guddal fanam yàlla dooli ko sàmm dooli ko wattu waaye noonu la ñuy nuyu xaaj yaawoon mi nga xam ni moom mi ngi ànd ak xaaj Lamine Ndiaye ak xaaj Usu fas yéene ànd ak ñun tey ci émission bu mag bi fa tabarakallahu di spécial Serigne kër si ñaan yàlla yàlla yàlla tax ñu si barkeem mu dekk le 25 mars bi bu muy yoon borom subhanahu wa waaye Serigne Cheikh Wade moo ci nekk biñ ko demee ba ñëw ndekk Serigne sëñ Babacar mi ngi ci miir yi waaye sëñ Babacar nekk newul ci armée waaye mi ngi ci miir yi ko fëgg ci miir yi rek muy la mu mel ni fa tabarakallahu rek bu ñu léegi dina gën a yaatu waaye di leen nuyu di leen ziar xam naa balaa ñuy solo rek ñuy dalal xaajeya mu nuyoo am nu mu def ak ñun bu ñu noppee ñu gees Oustaz Mouhamed moo tax mu wax ñu lu ñu indil fa tabarakallahu ci bisu màgg bi di suñu moom Serigne Babacar Sy di ñaan yàlla rek yéen ci dugg bismillahi rahmaani rahim waaye nag génn seeg alhamdulillahi rabbil alamin kon xaaja yaa nga nuyoo ya rabbi rabbi la ilaha لا إله إلا الله يا ربي لا إله إلا الله ilaaha ilaaha yàlla kenn la rabbi la ilaaha ilaaha rabbi la ilaaha yàlla kenn la rabbi la ilaaha ilaaha قلب العارفين إمامنا رب لا إله إلا رجائي وقوسي للإله وسيلتي ربي لا إله إلا الله ختام النظام للولاية جملة ربي لا إله إلا الله به أرتجي الغفران من كل زلة لا إله إلا الله به أرتجي الفرق المحاول كلها لا إله إلا لا لا وقاية التجان من كل سدتي لا إله إلا لا وكم أستكي عند الإله زيارة ربي لا إله إلا لا لا سوايا ولكن الحنان بخدتي بلا إله إلا الله ونادي واليدي نداء أقل جواب بلا إله إلا الله الدار يهتيني مرادي وربتي رب الله إله إلا الله وما زلت أرجوها من الله وحده رب الله إله إلا الله وإن لم أنا الحياة مرارة عيسى عيشتي بالله إله إلا الله وأنت وأنت الوعد إنك صادق ربي لا إله إلا الله إجابة دائم ذي ترار وزلتي ربي لا إله إلا الله إلهي فاغفر والدين ذنوبهم ربي لا إله إلا الله كذلك يا رحمن كل المشيئة ربي لا إله إلا إلا لا كذلك إخواني إلهي زيارة رب لا إله إلا لا لا ومن ينت من ربي إلى خير ملتي ربي لا إله إلا لا وأزكى صلاة الله ثم سلامه ربي لا إله إلا لا على خير خلق الله من خير سنيتي ربي لا إله إلا الله مع الآل والأصحاب ما شر السارق ربي لا إله إلا الله وما قال داء يا إلهي لسدتي ربي لا إله إلا الله يا ربي لا إله إله إلا لا رب لا إله إلا لا يا رب لا إله إلا لا رب لا إله إلا لا رب لا ilaha illallah rabbi la waaw ilaha yàlla kenn rabbi la ilaha illallah rabbi la إلا الله ربي لا إله إلا الله تبارك الله mu mel ni ni nga tey dugg na ñëpp sa nuyoo moom doy na waar xam naa ne Oustaz Mouhamed rek laa yërëm tey ndax ni nga nuyoo nii moom tawxiid na lool nga jël suñu téere moom seen xaaj Malick boobu jël genn gi boole koog moom ñu falaa budde min shakwa ilallahi kurbati fama liya gayrallahi jaabiri kasrati mm-hmm. nga dem jëli genn nga xool seen xaaj Malick foofu li fa bàkk yàlla wéetal yàlla mm-hmm. xam ne ku dul yàlla doo yàlla mm-hmm. ku dul yàlla rek li yàlla mën mënoo ko moo tax mu ne falaa budde min shakwa waaye ilallahi kurbati fama liya gayrallahi jaabiri kasrati mu ne wa qaraya baaba xeeri yaari bi lam yafit li zaaka saraf naa na xobaabi ko jeté ku la fi may ñaar yoon ñett yoon jéppi la waaye néegu yàlla fekk yaa ngi fay taxaw yàlla du la jéppi boo fa taxawul sax mu jéppi la kon ni nga nuyoo xaajiya dañu doog a tàmbalee rek sa nuyoo bi am na solo ñu gees Oustaz Mohamed rek ñu wax ko bi nan lay nuyoo bu nuyoo pare rek ñu doo a dugg ci li nga xam ne moom mooy programme bisimilah alhamdulilahi alhamdulillahi allazi jaala raxatal qulubi bi madih awliyallah wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa abdullah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din ama baad mbokki asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki bàyyi xel seen télévision Salam Vision ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax ci weeru tedd yu ñu ne waaye tamit di leen ndokkeel ci semaine yu tedd yi ñu ne di leen ndokkeel ci waxtu yu tedd yi ñu ne di leen ndokkeel ci bés bu bi ñu ne di jiital nag ci nuyoo bi ak ziyaara bi xalifa général du sëriñ Serigne Babacar Sy Mansour ñaan yàlla sàmm ko biir ak biti ci barke rasulillah alayhi salaam di ko ziyaara ci bésu way juróom wu tedd bi Serigne Babacar di bésu turam borom ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal tawfiq ak taysir ci barke yonent bi alayhi salaam ak njabootu Mawlaaya Seex Seydi El Hadji Malick gi yëpp papa Maodo si tabaarakallahu sëñ Mbay Abdu ak njabootu Cheikh El Hadji Malick gi yëpp yàlla sàmm leen biir ak bitti ci barke rasulillah alayhi salaam loolu la ñuy def comme ni ko ustaas jarabu sëriñ Babacar defee rek dem ba Touba ziara xalifa ba sunu maam Serigne Mountakha Mbacké ñaanal ko yàlla fan gudd lool bu ànd ak wér ak wér la ak njabootu Mawlaaya Serigne Touba gi yëpp dem ba Tiwaaw dem ba euh, Medina fekk fa Serigne maa ngi ñes ziar ko dem ba Léona fekk fa Serigne Cheikh Tidiane ñes moom tamit ziar waaye dem ba Basora fekk fa sunu Serigne Serigne Mouhamadul Habib Ndiaye ziar ko baax ñaanal ko di ziar soppi si na Mouhamad yëpp Oustaz Jara ñu ngi lay ziar bu baax di am mbégte ak kontaante bu baax tabaarakallaahu ci jotaay bi nga xam ne bokk nañ ko ngay boroomu xam-xam waaye ni mu nekkee boroomu xam-xam noonu la nekkee boroomu yar ndax bi xormati wasala man qar wasal wa bi tarkaxa fasala man qar fasal mhm. ci xorma ngay yeggee waaye ci ñàkk xorma ci ngay arrêté mhm. kon nag yàlla musal na la ci loolu yàlla yàlla sàmm la biir ak biti ci barke yonent bi alayhi salaam nuyu nag madaaxun yi nga xam ne ñooy tagg yonent bi alayhi salaam ñu ngi am ci yéen mbégte di am ci yéen kontaante di ngeen nuyoo moom saf na neex oustaz ñii dañu nuyoo moom tabaarakallaahu saf na neex lool xam naa ne oustaz jërë yàgg naa maa am problème waaye essayé mi nekkoon yaa war am problème tey ndax yaa koy <laughs> bu baax di nuyoo nag tabaarakallaahu sunu uh, wayjur wi su war sunu tonto bi mm-hmm. tabaarakallaahu Serigne Sam Seck mm-hmm. borom cële bi di ko ñaanal yàlla tawfiq ak taysi mm-hmm. di nuyu mboolem koo xam ne rek yaa ngi liggéey fii ci Salam Vision ñu lay nuyu di nuyu suñu baat jeen sayidi di ko ñaanal yàlla tawfiq ak taysiir oh, allahu déggee oustaz waxaat na ma affaire yi waaye mel ni rek comme ni nga ko faral di waxee rek ñu ne fii di Salam Vision émission bi tey ñu waxtaanee jikkoy sëñ maam Serigne Babacar Sy waaye lu mu wax ci baayam boobu Cheikh Seydi Hadj Malick Sy waaye lu mu wax ci sëriñam boobu Cheikh Omar Foutiyou waaye lu mu wax ci sëriñam boobu di ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane tabarakallahu bëggoon ko lool nag bëggoon ko lool bëggoon ko lool fa tabarakallahu di ñaan yàlla rek yàlla ñaa defal jàmm Muhammad kon xase ah, loo ñu indil tey فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنون فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنون شيخ القلب يا من ينوح حقا أمله ولقد نفي المثل شيخ القلب فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنو ربي يلق هذا عبد يرجو من النار وبه الأسف ينمو أمامين فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنو أكبر أنت الله مولاك رب أحد يلا سمد يلا فرد أمام بين فمحمدنا ليس هو سيدنا هو أجمل ما فني نور الخلق مسرى الله وروى أجبا أين رسول من فمعا جرى أنا سبسين بابا واو سيدنا هو أجمل ما كان وسق القلب فنحالي ربي لم يزل وبي الهن عجز المحمين فمعابدنا وهو سيدنا هو أزمل ما ترنو سيق الخليفني إني أرجو أرجو قرص الروض إني أرجو أرجو أبايو سيتيجان إني أرجو أرجو بايو سورمبي إني أرجو أرجو بايو الأمين إني أرجو أرجو برم بنكار إني أرجو لفن أرجو شيخ الخليفة نينا إني أرجو نينا أرجو طالب شيخ الخي إني أرجو نينا أرجو سلام الله ويا إني أرجو نينا أرجو بك سيد بابا كروي إني أرجو نينا أرجو أنا سبي خليفة إني أرجو نينا أرجو bëgg Serigne Babacar loxo. ku bëgg Serigne Babacar loxo. ku bëgg Serigne Babacar loxo ca. ku bëgg Serigne Babacar loxo ca. aajo gaaw na fa mbay. ku bëgg Serigne Babacar loxo. aajo gaaw na fa mbay. ku bëgg Serigne Babacar loxo. is walaay ku gaaw na fa mbay. ku bëgg Serigne Babacar loxo. laaj ko gaa ya daan di ke mbay mbay mbay mbay. ku bëgg Serigne Babacar loxo. lii ci biir. ci waawan mbay bëgg sëriñ Babacar la ana soppey sëriñ Babacar ku bëgg sëriñ Babacar ana waa kër sëriñ Babacar ku bëgg sëriñ Babacar loxo waa kër sëriñ Babacar ku bëgg sëriñ Babacar loxo ci bakkareeg dara maan aram loo kumba jam bay Seydi Jamil mbayoo ku bëgg sëriñ Babacar loxo ci mbayoo Mbaye Serigne Babacar Diarra yow mi xamul Seydi Mbaye ku bëgg Serigne Babacar Diarra yow mi xamul Seydi Mbaye eh Seydi Mbaye Seydi Mbaye yow mi xamul Seydi Mbaye ku bëgg Serigne Babacar loxo yow doxal ba gis ab nataalam Serigne Babacar loxo du sol leneen lu dul ba ne carré bi ku bëgg Serigne Babacar Diarra duma fi way lu kenn wayul ku bëgg Serigne Babacar loxo duma fi wax man ah. lu kenn wa taxul bëgg Sëriñ Babacar waaye man yaya sañ naa barkeelu ay waay ndax ma mas man liggéey di mas ku bëgg Sëriñ Babacar ana soppey Sëriñ Babacar ku bëgg bi tariqatina niamal kun khalifa li fa واو هو سيدنا واو هو أجمل ما ترنو yàlla nangul ñaan sumaal ali sahbil kurama wa humul hulama kullul bataloy mbay ah. ah sant ak Malta. mu mel ni mbir maa ngi doog a tàmbalee neex nag. xaaja yaa yow fi nga génn sax maa jaaxal. dangay génn ci suñu maam Cheikh Seydi Hadj Malick ci tawxiidam boobu jugee waa fi ñëw ji fa Mouhamadou naa foofu sama maam Serigne Babacar Sy di fa ñaan ñaan bu am solo. inni arju mawtan karaman bi tariqatina ni'mal amalu kon fa tabarakallahu kon nit lu mu mën a am kon ku mel ni suñu maam Serigne Babacar bu demee bay ñaan pour yàlla rek ci tariqu di Tijani nga xam ni kon loolu loolu lu rëy la man inni arju maa ngi yaakaar ak daraja ji yàlla may yëpp waaye mu ñu waaye liñ jànge du moom mooy ñaanal boppam mais ñun lay ñaanal ñun ñu koy bamtu di ko bamtuwaat pour yàlla dimbali nañu tey bu ñu soppee Cheikh suñu mujjug nooy ñu deewaale comme ni ko suñu maam El Hadj Abdou daan ñaanee yàlla ma yàlla rey ci tariixa Cheikhuna Tijaani kon góor googu tey boo xasee boo tàmbalee xase yi dem bi mu def ci ay tawxiid comme ni ko ma baayam Seydi Hajji Maalik dafa woon ci bàkk ci yàlla waaye dem ba ci biir tamit bàkk ci Seydina Muhammad mi ngi xam ba ci biir bi bu bëgg kër ku bëgg dugg kër yàlla caabi jële ibbi mooy Seydina Muhammad mu mel bi mu déparé di daw man ni ko delluwaatal bàyyi nga porte bi ci ki nga war jaar jaaroo foofu ñu ne ko fu mu ne fan laa war jaar ñu ne ko si rasulullaay ndax boo xam ne fa tëb rek ni falaa budda min shakwa mm-hmm. waaye ba ci biir nag yaa ngi dégg muy dellusiwaat naan ka wa kullu naa si wal xeb bi mawsuufun bi rahbin wa rahmatin waaye am na lu jiitu loolu mi ngi xamal ni lu waaye di wut rek naka jaar ci yow rasul naka jaar ci rasulullaay doo ko am ci yàlla kon nga ñëwaat tey ci xasida suñu maam sëñ Babacar bi kon Oustaz Mohamed mm-hmm. ah lañ ko ñu indi rek suñu maam Serigne Babacar tey waaw tabaarakallah xaj jara di amaan mbégte bu baax ci ñi nga xam ne ñooy renouer xaside yooyu te lépp di tawxiid te xam nga tawxiid ci la nit mën a yeggee ci yàlla mhm. nit ki mënoo yegg ci yàlla loolu sa xol dafa nekk danga nga def taxallus may set mhm. wecc ci mhm. bàkkaar mën a yegg ci subhaanahu wa taala oustaz sunu maam seexul xalifa li may faral wax ne mënta ñàkk mu mel ni mu mel ndax dañ ne picc bu bu bu bu mooy picc bu jur juddee ci tàggam màggee fa bu naawul rek jaaxali ay. mbokkam ay mbokkam. Mm-hmm. ndax suñ xoolee kan mooy way juram. Mm-hmm. xam nga way jur dafa am solo ci doom. Mm-hmm. ndax sallallahu alayhi dafa wax ne. taxayru li nutfikum. li nutfikum tànn leen seen njaboot ëllëg kan moo war a nekk way juram. moo xam góor kii la moo xam jigéen gi la il faut mu tànnal njabootam kan moo war a nekk way juróom parce que ëllëg mm-hmm. doom jooju mën naa nekk lu ne mm-hmm. Cheikh Seydil Hadj Malick nag ñëw nekk way juru Serigne Babacar Sy mm-hmm. ndax Hadj Malick la waa ji waxoon alxaaji maaliku naa samsu lanaa talaat fii kulli ufuqi asaatul mudiaat nee na sax benn jant la boo xam ne dafa branché ay jant yu bari wax boo dem da nga fekk lumière mii muy ñiital mhm. kooku moo jur Serigne Babacar Sy nga mhm. xam ne Cheikhul Hadji Malick mhm. ki ko jur mooy Serigne Babacar ki ko jur mooy Mawlaaye sax Seydil Hadji Malick ca xam-xam ba doon Rasulullah ci côté bu nekk ndax ni yonent bi mel Cheikhul Hadji Malick noonu la mel dafa roy yonent bi xam nga yonent bi oustaz sayyidatuna Xadija ko gis a bëggal ko boppam taf ko ci boppam mm-hmm. nekk milliardaire ci Màkka nekk mm-hmm. intellectuel bu ñëpp doon wër mm-hmm. waaye too xoolul kenn rasulillahi rek la xool waaye rek euh, maam Cheikh Seydi la Hadji Malick tamit nekkoon euh, ndar nekk ko am xam-xam nekk ko sàmm nekk ko am yaa ndax laysal yatiimu lazi qad maata doo innal yatiima yatiimul ilmi wal adabi mm-hmm. Maodo am xam-xam mm-hmm. am teggin mm-hmm. wax ne fii ko maam Roqee Njaay gisee kër da yaay ndeyu daaraam la ko maam Roqee Njaay gisee gis ne Seex Seydi El Hadji Malick nangu yi ñëw baax neen lool waaye yar ga nekk ca Maodo nag yow nekku ci kenn dal ga nekk ca Maodo bu ñëwee dee teg boolam nekk ba éri ñi jot mu ñibbi soxna Roqee Njaay di ko gis ci Sëriñ Babacar Seydina Muhammad sayyidatuna Xadija dafa gis ci moom mbaax ak yaru ak dal mhm. mu jóor na Nafisa Nafisa nekk ndiig li mhm. mooy doxal ko ba diggante ba sotti maam mhm. Roqee Njaay noonu la gisee Seex la El Hadji Malick bëggal ko boppam Seex El Hadji Malick nangul ko li nga xam ne moom la maam Roqee Njaay bëgg te waxkat ba waxoon na ne rasulillahi lam tazal fi damairil kawni tuxtaaru lakal umahatu wal abaaw rasulillahi li nga teddee ñi nga mel hmm. munta ñàkk nga mel nii hmm. ñu ne ko lu tax hmm. na baay yu baax nga am lu tax yaay yu baax nga am lu tax maam yu baax nga am kon ni nga mel nii rek mën nga nga mën a mel yow rasulillahi Cheikh la xaj Malick noonu la mel yàlla tànnal si Serigne Babacar Baye muy Cheikh Sidil Hadji Malick ñu ne kan mooy yaay ñu ne Sayyidatuna Roqaya an-Nabilatu at-Tahira nga xam ne intellectuel pur maam Roqaya Ndiaye la ndax ndar ndar yeew gi muy yeew day jéggi doyo mm-hmm. ndar ndar yeew gi muy yeew dafay jéggi doyo Mame Rokhaya Ndiaye moomu mm-hmm. moo nekk yaayu Serigne Babacar Sy mm-hmm. nekk koo xam ne ak taahira la ku làpp ci xol làpp ci jikko ndax rasulillahi amina mooy yaayam te amina ku ñëpp xam la naq yat am zahiri tuuxam yi mooy lu ñu tuumal jigéen rek mooy aamina da cee muccoon set ci wecc mm-hmm. waaye maam roqee njaay mboolu lu ñu tuumal jigéen mm-hmm. da cee set wecc mm-hmm. moo tax yàlla boole leen maam seex si laxaja maalik maam si datunaa roqee njaay ñu yàlla boole leen am ku mel ne sëriñ babacar si moo tax sëriñ babacar daana wax ne su ma doonoon doomu al doomu kaañ sax du ma teree nekk xalifa si si axamada tiijaani kon moom wóolu na boppam te seexul xaja maalik taawulul ko sëriñ babacar ku nekk xam na ne Sidi Ahmed ba des sa guerre ba. Hmm. moo ko mag. Hmm. mu judd 1885. Hmm. ci kan. ci way juróomu tedd ba Seex Sidil Hajji Maalik ci diggante kan ci way juróomu tedd ba Sayyidatuna Roqiya Njaay oustaz xam nga mam Roqiya Njaay bi mu gisee Seex Sidil Hajji Maalik fi ko bëggoon te taalibe ñaareel téere rek lay am mbokk yëpp na Roqiya Njaay yow lu dal ndax la daloon sayyidatuna Xadiija ay milliardaire di ko sees mu bañ mhm. maam Roqi Njaay lu mel noonu daf koo dal mhm. ndax doomu buur la moom mhm. ñu ne ko waa Roqi Njaay lu la dal kii nga xam ne àll ba la jógee dëkku sax ndar yow ngay ndar ndar nga ñëw gis kii rek topp ko lan moo waral loolu ah Seydou Sna Roqee Ndiaye moom bëgg gi ma bëgg Cheikh Seydi Hadji ak gis gi mu gis Cheikh Seydi Hadji Malick na ku baax la ku yiw la hmm. ndax alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan hmm. wa hakaza nujo baax nga xam ne moom la rasulilaay mel hmm. moom la mawlaay Cheikh Seydi Hadji Malick mel maam Roqee loolu gónni ko ci Cheikh Seydi Hadji Malick ndax oustaz ku nekk ak lu lay neex ci nit am na ñoo xam ne star bi nga doon ci koñ bi rek moo tax bëgg la am na koo xam ne nag sa solin moo ko neex am na koo xam ne sa waxee na ko neex waaye am na koo xam ne sa jëfin sa jikko moo ko neex maam Roqee Njaay loolu ko neexoon ci Seex Seydi El Hadji Malick pour bu gën a jib jant boo xam ne ñëpp lay tiim ndax kuy jant Seex Sëriñ Buba Sëriñ Aboubacar tiim na la mooy géej géej gi nga xam ne da ngay xuus a xuus ba bëgg dee waaye doo jeexeel géej gi ñëpp naa ko Roqee Njaay fi ne Maodo takk na la kan mooy sa njëkkee ndax oustaz Euh, jigéen boo ko takkee il faut nga may ko première mm. njëkk yi mm. mbokk yi ne waa Maw Roqee Njaay kan mooy sa njëkk yi mm. topp ko rek topp ko sonal ko kenn mooy sa njëkkee yi ah muy muñ loolu rek waxu dara Seex Seydil xaj Malick benn bés mu fekk Maodo ci darsu bi di jàng ndax Maodo baal dafa xumboon comme yonent yi baat bi mu xumbee am kaddu ñëpp wër ko Maodo toog ci digg bi di jàngale xam-xam Sayyidatuna Roqee Njaay ñëw ci moom na ko Seex Sidi la xaj maay mu ne ko labayki mu ne ko dama la soxla mm. maru na ko ma ñëw wala ma xaaru pan ne ko fii laa la koy waxee mm. sama mbokk yi ma tëkkee ba léegi mm. ñu ngi laaj kenn mooy sa njëkkee te kuñ takk war ngaa xam sa njëkkee pour nga mën a def ak moom teraanga Maodo na tekk xool ci suuf ba ci yaa xool ci kaw na ko jox naa yàlla mooy sa première njëkkee jox naa yàlla sa première njëkkee yàlla laa ko def maam Roqee Njaay na ko njëkkee dañ koy jox suru njëkkee njëkkee sëriñ jara dañ koy jox sëru njëkkee mm-hmm. kon yàlla nga def muy sama njëkkee mm-hmm. am na pàkk bu ma doon ne ci sama baay fii ci ndar mm-hmm. danaa ko jël jox ko yàlla muy kën muy muy sëriñ njëkkeeyam mooy zawiya bi nekk ndar zawiya bi nekk ndar pàkk maam roqee njaala mm. mu jox ko Seex Sidi mm. na ko def naa ko përëbën njëkkee mm. sa mooy def naa ko seru njëkkee ci yàlla mooy pàkk boobu nga xam ne moo nekk ndar te Serigne Babacar tabax ko ba mu mat mu jox ko Seex Sidi El Hadji Maalik caabi ja yàggul Seex Sidi El Hadji Maalik laxas uyu ju boromam kon nga xam ne Serigne Babacar lu mu mel mun ta ñàkk mu mel ni mu mel tabarakallahu oustaz daanaka waxtaan bi am na solo mm-hmm. mel ni xol yi sedd na ni ko waxee rek léegi-léegi Mouhamed Bachir mu ko waxee Seydina Mouhamed lam tazal mm-hmm. fii damail kaw ni tutaaru lakkal umahaatu wal mm-hmm. sidagement ni fama zala manqulan mm-hmm. min aslaabi toxari ila tayibaati rahmi ni amal usul fa tabaarakallah nga xam ni te wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi izni rabbi suuf su sell bu sellee génnee mu mel ni am nga fi nga jaar fi nga xam ni moom la suñu maam Cheikh Seydi Hadj jaara suñu maam Roxeetu Njaay ba Sëriñ Babacar Si ñëw mm-hmm. duñ ci jaaraat duñ ci duñ ci jaaraat ndax li ñu ci wax doole sëkk mm-hmm. wa tabarakallah di yàlla yàlla gën a gudd sa fan waaye mu mel ni rek suñu maam Sëriñ Babacar Si dafa nekk doomu sàkku doomu sàkku waaw di ko alaaj Ablaay waxoon woon mm-hmm. fa li cheikhi awlaadun xiyaarun te addabu sa sa sa tantixu kullu unaasin bi faqri waaye walakin abou bacri jaddiru ala sadri Sëriñ Babacar moomu nag fi woy juróom bu jigéen jaar ak woy juróom bu góor moo tax mu toll fi mu toll addiyee yi ko addiyee yi wax nga benn wax benn ci addiyee yi muy benn ci pàkk bi waaye waxaa nañ joxoon na ko tamit ñetti ngurut benn bu ne wax sérage mu ne séragement ni garantil ma lii séragement def lépp ay téere woo magi lugu yëpp ba magi lu magi lugu magi lugu yëpp génn mu ni lu ma joxoon roqeetu njaay delloowaat na ma ko maa ngi koy ñaanal mu am ko xam ba xam ñu ci ginnaaw téere yi kooku tey mooy Seydi Aboubacar mii waral bis bi ku bëggoon Cheikh na Tijaan la nag képp ku bëgg yàlla nangu la ci tarixu Cheikh bi ak foo mën a jokkoo dangay ngay nangul Serigne Babacar boo ko nangul loolaal faaw nga nangul ko amoon na benn nitu yàlla boo xam ne danaan teggi tiyaawoon ngir ne dafa bañ sëñ Babacar waaye bu demee xadarat yàlla yére saa yu bu ubbee rek si sëñ Babacar lay jot mu delluwaat. Mm. ñu ne ko bu solo sa bopp. kii fekk nanguloo ko li nga bëgg ci yàlla doo ko ñam mu doog a nangu suñ moom Serigne Babacar li ko yàlla doog a ko waaye xaji yaa jël suñu papa mbay mu ne suñu moom Serigne Babacar si ku bañoon kuy tuur ceeb booy lekk nii nga tuur ko ku ko bañoon la bokk na ci li daan génnee xolam tey nga lekk di tuur ceeb bi soo tuuree rek dafa mel ni xol bi ngay jam pambay doon nee na mu toog ci néeg bi di lekk oustaz nee mu tuur ceeb bi sëñ Babacar mi ngi ci kaw xam ni pambay doon di tuur na ceeb bi suuf mu wàcc mer aalu di jubal ci moom nee na mi ngi mer pam nee na sëñ Babacar ngi mer nee na wàcc escalier bi jubal ci moom di ñëw ci moom nee na ma tiit ma ne ay am na nee na bi sëñ Babacar ibbee bunt bi ma ne wuy tey laay dee man pambay doon de pambay doon de may wax de nee ni mu sëggee ci ceeb bi mu ne tey laay dee moo xam ne lenn rek moo ko ci mën a génnee nee na mu yuux innal manaayil nal manaayil tabibul masaaya wa imanaayi tabibul masaaya wa innal manaayil tabibul masaaya wa imanaayi tabibul masaaya وجود الذي أعلاه مولاه ويل المنايل بالله تهميم المزايا وإيمانا إلى تهميم المزايا سخلق جاكو ربا بلا قلب خانوا يا لله من آه تغني بالمزايا يا ويمانا إلى تغني بالمزايا لقد توبي مات الأوبي فهذه الحياة تربية نعم المربي مريب الحق يرضى يا ويمانا يا تهمي من مزايا علم وينا للخلافات ومن شاءت وراثته الدار وختم من الرحمن والجاه خليفة ويوال الخلافة أيوة قد ساءت وراثته أتاه ختم من الرحمن والجاه خليفة وأتاه ختم ختم كل سعد قولون أتاه من الرحمن والجبلول أتاه ختم أيوة ختم كل سعد القلول أتاه ختم رقصان زين بابا ترى الله جاك وأتاه ختم ختم كل سعد القلول أتاه ختم من الرحمن والجبلول أتاه yow xatmun xatmun ku dul seex déggoo lool ختم من الرحمن والجاه سقطي جان أو أشباء الوبل ففي آبائهم الأميران لا أسباء الناس خرقا في جدوى أو أشباء الوبل وفي آبائهم الأميران لا أسباء الناس خرقا في جدوى ألقيتك في جدوى

عقيدتها برزت كل مقتول دول العارفين شيخ التجار برز كل مقتول دول العارفين لقد كون مقتول شيخ برز كل مقتول دول العارفين شيخ التجار برز كل مقتول دول العارفين فينا في جتوا أيارا مقام سيد الحاج مالك سيفي جتوا أي دار سيد الحاج مالك سيفي جتوا شيخ الخليفة بابكر سجلنا نملا شيخ الخليفة يا خليفة بابكر سجلنا خليفة xalifa Babacar Si jël na ndam yow yaay borom leer yow xalifa Babacar Si jël na xalifa maam xalifa Si jël na ndam yow yaay borom leer Si jël na ndam fii jatuba singa bakar wa innani qatumtu min ahli ndari ahli ndari wa maskani bi aradari addari li andari la xol dootul xol la fay doo ma nekk keneen mbay yaa yor diine jeey maam Khalifa Babacar Si jël na ni nga gore la waanoo Khalifa Babacar Si jël na ndam wa innani qad tumtu min ahlin dari wa maskani bi الحمداني أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا به شيخا إلى آخر دهر مام خليفة بابكر سجلنا أتيو يا إبو يا خليفة بابكر سجلنا سجمنا بين الخليفة أبو في مام خليفة بابكر سجلنا يا سجمنا بين الخليفة ma xalifa Babacar Si jël na na te yow yaay borom leer yow xalifa Babacar Si jël na na mu dara sëriñ Mansoor mooy xalifa Babacar Si jël na na te yow yaay borom leer yow xalifa Babacar Si jël borom leer yee borom leer yee borom leer yee yow yaay borom leer yow xalifa Babacar Si jël naan ate yow yaay borom leer yow xalifa Babacar Si jël naan dama la fi jatwa Muhammadu Mansour sa gannaaw ba ki nga yaakaar ki nga doyloo mooy Mansour sa gannaaw ba Salam Vision lay wayal tey maam Mansour yeye Mamadou Mamadou gannaaw Mansour góor ga ca gannaaw baay nga ma ja sax cara tey man Mansour góor ga ca gannaaw baay Mamadou Mamadou ma Mansour góor ga ca gannaaw baay royal tey mam Mansour góor ga ca gannaaw ba Mamadou Mamadou mam Mansour góor ga ca gannaaw ba aca Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mansour góor ga ca gannaaw ba Mamadou Mamadou mam Mansour ga ca gannaaw ba Jamil mooy Mansour góor ba sa gannaaw ba Mamadu Mamadu ma Mansour góor ba sa gannaaw ba way araftul wara sarxan sarxan ku def nii ci bay sa aajo day faju araftul wara sarxan sarxan wa xarban wara ara ka misli fatan Mansour way la سائد الورى إذا سبق الأقوام يوما يوما إلى الأولى يكون نقول إماما في الورى والورى والورى والورى محمد منصور مسكنا محمد محمد منصور كسكنا خليفة ببايا موي الله منصور alaaji alaaji Mansour kon sa gannaaw baay. xalifa bi baayam mooy alaaji Mansour kon sa gannaaw baay. ya alaaji alaaji alaaji Mansour kon sa gannaaw baay. baayam fii yaadiin. Seydi Haaji Abdul Aziz de su ko jam fii jotuwaay. Ferdawsi yal na fi yàgg te ànd ak wér fii jatuwaar Sëriñ Ferdawsi yal na fi yàgg te ànd ak wér baayam turandoo maamam Pape Ferdawsi yal na fi yàgg te ànd ak wér baayam turandoo maamam Pape Ferdawsi yal na fi yàgg te ànd ak wér borom la ay tu Rasulallah Pape Maodo Seye yal na fi yàgg te ànd fi yàgg te ànd ak wér fii jatuwaawoo Serigne Baye Seye Mansour dalal na xel yi fii jatuwaawoo fii jatuwaawoo fii jatuwaawoo Serigne Baye Seye Mansour dalal boole ci wér fii macha xam nga sa maam Serigne Babacar Sy ku bëggoon Cheikhul Tijaan la. moo tax xëy na bis xaw a feebar bopp bi di métti bu bëgg a ziare ji Cheikh fekk Cheikh génn na dem yabrin ginnaaw indi ci xam nga Cheikh dafa am taalibe ba am ay taalibe gàncax. ay gàncax ay taalibeem lañ. day jig saa dem ziare ji leen. bu mu génnee ziare sëñ Babacar Sy bëgg dem fees xam ne yëg ni Cheikh génn na dem na yabrin te boobu mënul faa àgg mu ne xaj min sa ila salma bi yem hmm. lin damay fexe ba àgg fi nga xam ni fa la cheikh nekk ba ziyaara ko waaye innal manaayiri bi da ko bëggoon hmm. bu dee ba ci biir mi naa o ashbahal woblu hmm. fii afaaxi mun xamiran kon la asbaha nnaas garqan fihi jadwaaw nee na mayu cheikh dafa mel ne taw waame taw waame mooy muy taw mu ni raw la sax taw mu ne bu fekkoon dañ ko jël def ko ay taw mu taw kon nit ñëpp dañuy lab ngir mayam hmm. nga xam ni kon foofu ku ku sore woon na ci Cheikh Tidiane hmm. Oustaz Mohamed hmm. loolu si du dolli rek waaw xam nga tabaarakallaahu di amaan mbégte rek ci sopp yi nga xam ne ñu ngi fi woy yu neex a neex ci xasida yooyu nga xam ne Serigne Babacar Sy def na ko ci soppeem ba Sidi Ahmed Tidiane yi nga xam ne mooy baytul wilaayati misbaahu walaami wa miftaaxul kunuusi wa xatmu kulli xiini mm-hmm. sidi ahmada tijaani yi soppeem ba mm-hmm. sëriñ Babacar woyu ko mm-hmm. waaye gis nga xasaas jara xam nga dañ la wax ni ñaar ñi seqoon sëriñ Babacar muy alxaaji Malick ak Mame Rokhaya Ndiaye ndax nit dafa war a jur doomam bàyyi ko mu dem kon dafay mel ni bàyyi ma buy dox nit boo ko bëggee tee il faut nga jàngal ko mm. te rasulillah waxoon na ne kullu mawlidin yulidu ala fitrati mm. islaami mm. illa abawayhi yuhudaani aw yu nasraani aw yu majisaani sayyiduna muhammad borom bari yoru or ba tëdd majin tëddaay bu jekk ba nee na ku judd rek loo doon sa wéy joro la def benn nga nekk nasaraan wala nga nekk yahuud wala nga nekk majuus mm-hmm. Seex Seydi Hajji Maalik xam na yàlla daf koy laaj ëllëg njaboot gi muy Sëriñ Babacar mm-hmm. mu commencé la ko jàng alquran ci loxoom la ko mm-hmm. jàngalee alquran seexul Sëriñ Babacar nekk moom ay diir mu yëkkati ko jox ko alxaaji Malick Sarr kenn ci mu xadamu Serigne Babacar yi Serigne Cheikh Seydi Xaaji Malick mu continué moom jàngam continué ak moom jàng ba si yàgg Cheikhul Xaaji Malick yëkkati a Serigne Babacar jox ko Mamour Xujji si ca kër Yoro Sadio mooy continuer nag jàngal Serigne Babacar alquranul karim ba Serigne Babacar mokkal ko mokkilin boo xam ne mm-hmm. fa tabarakallahu mm-hmm. mokkal bu rafet mm-hmm. xam ahkaamu jàng yëpp mu xam ko gannaaw boobu maar mo moor mati si daal di koy jël te Serigne Babacar di ko jàngal ak xam-xam ndax boo jàngee alquran ba pare jàngoo xam-xam tamit dafay am lu des ñu toog ba ci yàgg Cheikh Sidi Hadj Man indi ar ko ci peggam pour jàngal ko ndax xam-xam ca xaaji Maalik fekk mbaax mm-hmm. kan laaji male mm-hmm. kan seeti Maalik mm-hmm. am laaji Maalik gàññi nañ kër Seex Siidil Xaaji Maalik xoolal kan laaji Maalik masala bi jaaxal nañu kan dem def bokk def délégation man sëriñ bi ak taali bi ñu dem Seex seeti Seex Siidil Xaaji Maalik am laaj Maalik dama mu leeral la ko kan seeti Maalik mu leeral ñu ci wàllu diine jeeg tariixa bi sëriñ Babacar xam ne papam boroom xam-xam la. Mm-hmm. ndax sax sadul abi borom gëlëm nga ca nim saat nga xam ne sët la ci Seydina Muhammad mm-hmm. daf na ko Maodo du ma ndax dereetu yonent bi mm-hmm. ndax alxasuudu laa yasuudu. ki nga kiñaan doo ko mës a yëlif. daf ne madaari suufi la elmi xayru madaari sin wa awraadu daf ne. sëriñ ba Seex Sidil Xaaji Maalik bi nga yoree. ñi fii formé daal man yéem na ma. Mhm. ci xam-xam. Mhm. ci yar. Mhm. waaye ku bëgg a nekk nitu yàlla. seq sa lu abi nii na jàppal wirde bi seq si il xay mal yi doo. naasir al xaq bil xaq. talaat al xaq bil xaq. laa ilaha illa allah istixfar. salaatu ala nabi mu dem ci rasulillahi lii dem ci yàlla lii dem ci rasulillahi te yàlla ak yonent bi dañoo kole kenn mënut a teqale yàlla ak yonentu. seq si il xaj Maalik jëlaat sëriñ Babacar pour jàngal ko ndax mm. xam-xam bi nekk ci moom mm. te leer na la ko Sidi Ahmed mii du ko donn mm. xam-xam bi nekk ci moom kenn rek fu mu ko mën a def mooy ci sëriñ Babacar mu téye sëriñ Babacar de ko jàngal commencé koo jàngal commencé ko jàngal bëggoon nag sëriñ Babacar bëgg ko lool wax ne ne bu ñëw ay Dakar dafay ànd ak sëriñ Babacar ko pour bañ rek njàngam arrêté ndax diir bi muy def Dakar bëggul njàng sëriñ Babacar arrêté oustaz léeg-léeg buy seex Seydi Hadji Malick ñëw Dakar. Mm. am mënut a ànd ak Serigne Babacar. Mm. daf koy boole ñenn ci borom xam-xam yi nga xam ñu ngi biir Ndar. Mm. na ko Babacar demal ci jiw mu jàngal la. waaye Seexul Hadji Malick ñëwee ci tukki bi dafay yëg ne. Serigne Babacar fi mu yemoon ci xam rek ci téere yi foofu la yem. mu ne ko Babacar kanaa waxuma loolu nga dem ci jiw ak jiw mu jàngal la. mu ne ko papa ankañ ñu ngi ma wax dégg naa ko waaye bàyyi maa jaxase sa xam-xam ak xam-xamu keneen ndax xam-xamu Maodo. sell gi mu sell ndax xam xam Maodo ragal yàlla gi nekkoon ci Seex Sidi El Hadji Malick ragal yàlla dem na ba ci yàgg mu bàyyi xel ne soow mii sax nag wi mu jógee mën naa ruur tool te ëllëg sama dereet jaxasoog moom mën naa maa jural problème te bëgg na njaboot gu lew bëgg na njaboot gu baax bëgg na njaboot goo xam ne ñooy doonu yonent bi Sëriñ Babacar dafa doonu yonent bi doonu Muusaa dafa doonu Souleymane danaa la ko wax doonu Seydina Souleymane doonu Seydina Moussa doonu Seydina Ibrahima doonu Seydina Muhammad salaa salaam lu tax. Mm. Serigne Aye Gueye dafa wax Serigne Cheikh Sidi Hadj Malick ne ko. Mm. Mm. Souleymane yaa ko doon. Souleymane Amri. Souleymane Amri. Moussaoui. Moussaoui yéen ñu mu ne Souleymane nguuram nga. Cheikh Sidi Hadj Malick yore nga ko incarné ko ba téye ko. Souleymane Amri. Moussaoui bi Nigerien. yow yaa doon Seydina Moussa ca kattan nga ak njàmbaar ga. Mm-hmm. yaa donn Seydina mm. Ibrahima ca xarit ga mu yaree woon ak borom. Mm. ci diina ga mm. doon na nga rasulillah ci sunnaam. Serigne Babacar doon na Cheikh Sidi El Hadj Malick. jàngal ko seex Sidi la Hadj Malick jàngal ko. ba Serigne Babacar kër El Hadj Malick yëg na baaba kër mii. bu doon xam-xam di géej géej la ci mboolem branche su xam-xam yi. fu nu nu sariya yëpp mu daj ko. loxo man lépp suul yëpp grammaire mu nekk ci dënnam ma ne nem mu ne maral sax si raxajamaa ni xam ne nit bu amee xam-xam te deful mu jëkk ko day mujj nekk fas woo xam ne wala mbaam moo xam ne dafa yennu téere nit bu amee xam-xam waaw jeex na yàlla nee na am na ñoo xam ne dañu jàng ba fees del mm. waaye buñ jëfee nga ne na mbaam a jëf mm-hmm. wala fas fas wuñ takk ndax fas sax am na njariñ ndax nit ñaa ngi koy liggéeyee mm. sax Seydi Hadji Malick xam ne doomam ji mm. xam-xamam alquran mu ci moom mm. jàng na xam-xam mm. kon war na ko jàngal jikko ju baax te nit ki bu amul jikko ñàkk perte na ndax yónnante bi nee innama bu'istu lu utammima makaarima axlaaq te maa daaqil bilaad bi ahliha walakin axlaaqu rijaali tadiyu wax ka def ne école yi dëkk bi xatut dëkk bi xatul mhm. kër yi xatul ñu ne ko lu xat mhm. jàng yi xatul ñu ne ko lu xat mhm. mu ne xol yi ñoo xat bu xol yi xatee lépp yàqu na Seexul Xaaji Maalik bëgg a xam ne nit xol ba la mu ne sama doom gi il faut ma tàggal ko ci diini il faut ma tàggal ko ci yar commencé koo yar yar tasawuf comme ni yonent bi yare woon ay saxaabaam jàngal leen xiif mm. jàngal leen muñ mm. jàngal leen rafle mm. jàngal jaamu yàlla jàngal leen lépp mu nekk ci Serigne Babacar Sy muy mooy li mu wax ci Cheikhul Islam mm-hmm. rabba bila xalwatin asaabu alanan waaye na mm-hmm. xata staqaamu fa yàlla man xaaw wallaahi ah. nga xam ne loolu kon daf ko doon ci yonent bi rabba yar na bilaa xalwat rabba bilaa xalwat asxaabuhu alanan fa yaa lillaahi sëriñ Babacar daf ne mm. Sidi Ahmed Tidiane sama soppe mm. ndax boo bëggee xam yonent bi mm. da ngay liir mbindum Seex Seydi El Hadji Maalik mhm. liir mbindam sama soppi bi alxaaji Mansour mhm. yaa rijaale lay xubbu mhm. lay si wallaahi rabbu lan tanaalu birra xatta tunfiqu soo bëggee xam yonent bi ah. demal ci Seex Seydi El Hadji Maalik demal ci alxaaji Mansour waaye boo bëggee xam Seex Seydi Ahmed Tidiane maa ngi lay yebal nga dem ci ñaari xalifa yi mooy maam xalifa ñas ci kaw nag ak seexul xalifa ci tiwaawar boo bëggee xam yone demal ci ñoom moo tax euh, dañ lay dégg rek Oustaz euh, pour li wax ci suñu maam Serigne Babacar Sy ci rabba bi laa xalwa boobu mm-hmm. in asaabahu alanan xata staqaamu ba ñu tag seen tànk ni Seydina Muhammad yare woon saxaaba yi kon mu mel ni bu la déggee am ñoo xam ne bu ñu yor seen taalibé dañ leen di yaree neneen moom dóoru ay taalibeem duggul xëlwa yoru ay kurus mais dañuy fexe ba tegu ci yoonu siraatul mustaqim fexe ba yàlla gërëm leen nga wax léegi léegi suñu moom Siraj ni mu nekkee wuy juru suñu moom Serigne kër Si euh, xam-xam moom la góor gi Aliou Ngaye waxoon ne ko isa nahnu jixnaaw min taallumi wajadnaaw sahran layinan lam yashaddid waaye sëñ Babacar wax ak ko wa kullu fannin lisaana xaali xaal mu mel ni kon yenn yi du jàng mais yenn yi innal fadla bi yadillah yuti man incha allah te innama ah, ah, ni ko alxuraan waxee sax ah, yàlla ne ittaqullaha wa yuallimukum am na yoo xam ne da ngay ragal yàlla yàlla jàngal la hmm. wax naa ko léegi léegi ñu suñu maam Serigne Babacar ak El Hadj alaaj El Hadj Abdou. El ay sàkku lañu ay doom yu ñu sàkku lañu biir àjjana wax yàlla ñii damaa bëgg doon seen jur ñoom ñu nangu ni yàlla ñii da kii damaa bëgg mu doon sama wayjur kii damaa bëgg ñii doon sama doom ñu waxtaan bu juboo ñu nangu jaar ci seen Hajj Malik suñu maam Serigne Babacar bi muy gën a àdduna 1885 dafa fekk suñu maam Serigne Babacar suñu maam Serigne Hajj Malik di bind tey siir mook Tayssir ñoo ma ñoo maas ñoom ñaar ñu ñëw rek ni ko soxna si am na gan muy suñu maam Serigne Babacar bi suñu bàyyi ala suñu maam alaaj Mansour keroog bu muy bu muy bu muy gën si àdduna mi ngi fay suñu suñu suñu maam suñu suñu maam Cheikh Siraj Malik mi ngi mi ngi jàng te wajje xay suma kunt ñi ne xay suma kaan ñi ne xay suma cheta wa innaka Mansour alaaj Mansour gën si àdduna wax nañu keroog bu mu alaaj Abdou gën si àdduna dañ ko téye di ko aayoo nen nan ko jamono ngi jamono jamono ngi ñëw dina lëndëm dina lëj mhm. yaa shiddati fi iddati in lam takun fa man bu nekkul yow kan lay doon alaaji Habib def départ volontaire mhm. wax yàlla bàyyil ma dem bàyyil sama mhm. nekk fi kon sérieusement kenn ku ne dañ naan ndawal guddi la jàpp rek nga jàpp ne yaa ci yor waaye ñoom ñëpp nag muy alaaji Mansour muy alaaji Abdou muy alaaj ayub ñoom ñëpp dañoo jël seen njuréel jaay ko def ko jaam ak taalibe ci suñu maam Serigne Babacar Si ñoom ñëpp dañ jël seen njuréel moo tax góor so soloñ sunu maam safari mës na mës na yeew leen ci buum ñëpp seen baat ñëw ba ci Serigne Babacar Si ni ko juróolum la ay rak ay sànga indil ay ay indil indilum la ay rak mais ay jaam laa la indil foo ne dimension bi suñu maam Serigne woon euh, ci nitu yàlla gi mu newoon waxuma sax doom gi mu nekk ci Seydi Hadj Malick ak fa way juróom bu wax naa ko léegi-léegi ni ku ku bugg a inal maaye naay la ba yaa nga ñëw ci waaye suñu bàyyi Muniru Sarr dafa ànd ak Serigne Babacar Sy jóge Ndar ñëw Tiwaawan sëñ Babacar boobu mi ngi koy jàngal fàtt jaar xaqi xam ndar yaa ngi may dégg hmm. bàyyi jaar xaqi xam ndar ñëw ànd ak góor gi Muniru Sarr hmm. ñu ñëw ba ci saal bi sëñ Babacar ni góor gi mënul xam nga sëñ suñu maam sëriñ Babacar amoon na ay taalibe yoo xam ne ay taalibe dina lañu. Hmm. am na ay taalibe rab. ku mucc neexoo mën na koo yónnee ni ko demal jëlil ma ko xef xeppi nga indi ko jaar bi mu ne góor gi mëneeru demal nga jëlil ma jaar bi ndar. Hmm. góor gi mëneeru saa départ dem ndar di jëli jaar bi bu mu jëlee jaar pare ba def ko ci ba def ko ci ba ko ci sarbet bi. Hmm. ci mouchoir bi yeew ko. ñëw ba ci pont Ndar bi gis ku bëgg sëriñ Babacar kuy wax ci kuy wax ci Serigne Babacar bay lox góor gi mëneeru ni du ma dem naa ko woon li jóge ci Serigne Babacar day xam ne dégg hmm. góor gi mëneeru fekk waa ji di wax Serigne Babacar bay ram tàng mu ni koy am naa lu jóge ci góor gi gis naa yaa ngi wax ci moom di gisoo ko góor gi ni lan la mu génnee jaaro bi di ko wan bi mu génnee jaaro bi di ko wan rek waa ji bëgg këf jaaro bi na góor gi mëneeru di da walee ndoxam nii rek jaaro bi dugg ci biir ndox ma mu ci pon bi ci ndoxu ci ci pon wu ndar bi bi jaaro bi duggee ci biir ndox mi góor gi mënóori jaaxle ni sëñ Babacar bi ma yónni ma jëli jaaroom maa ngi sob ba taxaw fii di ko wane ba waaju ba koo këf tey jaaro bi dugg ci biir ndox mi mu jaaxle nag xamatul muy def mu jël oto ñibbisi bi mu ñëwee ba ci saalu sëriñ Babacar mi ngi toog di sëñ Babacar mi ngi recevoir gani suñu maam Serigne Bakko bu ne teg fu mu teg fu mu ne tekk laan teg du bouger su la laa jàkk du du hmm. te bu lay nuyu nii la def loxo bi te rek dem góor gi mu ñëw ba ci buntu saal bi hmm. mu man lan lay wax góor gi lan lay wax ngi jaaxle rek mu jékki jékki saar seen si loxo suñu maam Serigne Babacar jaar xaqiqa sëñ Babacar di suñu maam Serigne Babacar di wëndeel jaar bi def nii di wëndeel jaar bi def nii góor gi mu neeru ci xelam góor gi Mounirou Sarr wax dafay am tegtal. booy wax da ngay wax lu wóor ni diw ak diw ak diw ñu xam li ngay wax. góor gi mu Mounirou Sarr ci xelam muy xalaat mu ni même damay bëgg a jaaxle wala suñu maam wala man Serigne Babacar ñaari jaar la yor. jaar bu mu jëli woon ne ñëw fekk ci loxoom bi mu yor mu yor jaar bi ni ci loxoom nii. lii lan la mën a nekkee. nee na bu muy si di xalaat nee na suñu maam Serigne Babacar ni ko Mounirou bàyyi la ngay xalaat. ku taalibeem du réer yowmal xiyaam nan ko jaaram di réeré fii ci àdduna yowmal xiyaam bu ñu teewee bu xas barang doo jaaxle ku am xalifa doo jaaxle yàlla di buur bi ko doole leen ko faat di ñaana xalifa may mi fi nekk yoroon xilaam kër gi boto njabooti Maodo ma Maodo ko fiita joot ba ni mbay nanga ñëw tay xalifa bi liggéey ba taaye ñëwal ba gis añam yàlla te di ñaanal. altine 25 mars 1957 si la borom bu nekk àll bi borom xilaafa gi bootoon. njaboot gi Maodo si bootoon. Mame Bayar ji mu yore ci biir mbooloo moom lay saxoo saa yu weetoo ngir batu yàlla bi ko sëboo tax na du jëfe lu dul yoona leen ko faate di ñaanal waaw waaw xalifa mbay mi fi nekkoon yoroon xilaafa gi booto njaboot gi mawta si bu nga masaana may tooga ba la heure ngir jootaay bu heure ba jub see ma may taxaw na tem ci loola di ñaanal waaw waaw xalifa mbay mi fi nekkoon yoroon xilaafa gi bootoon njaboot gi Maodo si bootoon aja ma mbay si ne na suma doonoon doomi kañ sax man duma te doon xalifa Maodo duma te doon xalifa Cheikh mi ma doy loon ñaanal borom bale kaay mbay mi fi nekk yore gi bootoon njaboot gi Maodo si bootoon kon bu daan doxante ci kaw taaxam ci waawan fàkk di ko seetaan mu mel ni gan si seen biirooy mbay not say jamono maye loolo Sëriñ Babacar soo ko masana présenté yow sa andando du fa tey yu la gisee di ko laajte as gor dafay gesu demba bu la masaana may toogaay ana soppey Serigne Babacar ba jox la heure ngir jotaay bu heure ba jub see maam bay taxaw na tem ci loolo nan ko abdu diw ñëw na maa ko joxoon waxtu wi naan te gor dafay sàmm kàddoom dal di taxaw lu ci loolo mësul la mooy boromam mësul la fecci walla ree mësul la dokk ak mm-hmm. lu amul du jikko moo jar sëñ Babacar juróomi la ñu bàyyi loon mm-hmm. góor du xam fàkk du tiit fen du ñàkk sàcci du soppeekoo du jàpp bay ab nawleem Seydi Mbay lii lanu baayel xale yi jot ci ginnaaw mbay a sunu mbay te mbay la nu gam xam naa ni xam naa ni la woon ci waxtu bi léegi mu jeex léegi mu mat xanaa rek ñu bàyyi Oustaz Mouhamed ci ne suñu maam Serigne Babacar jëlee jëlee tarixa bi ginnaaw bi ko suñu maam Serigne Hadj Malick waree àdduna jëm li nga xam ne mooy yowmal xiyam ci borom bi subhaanahu wa taala bi muy demee coow li bare woon na ci xalifam bi waaw ustaas tabaarakallaahu góor du tiit ba fàtte Mm. ngor du jàpp bàyyi mm. ku koy def doo gor mm-hmm. te innal ëhda kaana yàlla nee na kóllëre danaa ko laaj sëñ mm. Babacar ne ko ne alquran ju doon dox ci kaw suuf ndax mutaxalliyan bi qissa mutaxalliyan bi sifaatul quraniya waaye mutaxalliqan bi qisaali mustafawiya taqiyan wariyan zahidan naasikan abidan moom sëriñ Babacar si boobu léegi nag maa ngi lay bàyyi dem rek da ngay wax baat yi ci arab rek waaye doo wax ci olof sànq yaa wax nga lu bare bare ma lay bàyyi rek ngay dem boobu léegi maa ngi lay yaakaar nit ngi di ci dañ waaye da koy kóon rek saaka dem nga ci njirim nekkul ci ku ñàkk wuy jur uh-huh. waaye mooy ku ñàkk xam-xam ak teggin nga war ko leeral uh-huh. ci ñeneen ñi demal nga léegi léegi saaka uh-huh. nga defaat lii nga defaat lii tamit ah oustaz dee ko kii ci olof waaye gars yi di leen di xam li ngay wax nee na Serigne Babacar Sy ah. radiyallahu anhu mm-hmm. dafa nekkoon alquran bu doon dox ci kaw suuf mm-hmm. ndax mu taxaliya bi sifaatul quraniya mm-hmm. ndax sayyidatuna Aïcha bañ ko laajee kii sa jëkkër rasulilaay daf ne kaana xulquhul quran yonent bi alquran la mhm. beneen ma ne kaana xulqul quran yem si kaan kaana xulqul quran yem si àlal aati mhm. alquran juróon daagu ci kaw suuf la mhm. sëriñ Babacar nekk alquran waaye muta mutaxalliqan bi xisaali mustafawiya dafa jikkoon jikkoo yonent bi nekk koo xam ne taqiyan dafa ragal yàlla oustaz Diarra xam nga bët day njaalo làmmañ dafay njaalo nopp dafay njaalo sëriñ Babacar bëtam musta tegu ci jigéen ju ko lewul jigéen ñi sax buñ doon ñëw di ko ziar dañuy benn malaan benn rëdd seen diggante ak moom. Mhm. pour ma dox digganteem ak Serigne Babacar ba bu leen gis. Mhm. kon nga yëg ne taqiyan dafa ragal yàlla ci mhm. côté bu nekk. waaye wariyaan. mu nekk ko sàmm diggantam ak boromam sàmm ay cëram sàmm diggantam ak jaamu yàlla yi zahidan nekk ko dadduñu maf ñaandu ko nekk koo xam ne naasikan la xam nga naasik rasulillahi alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nu jabaaw rasulillahi noonu la meloon waaye sëriñ Babacar naasikan la xam nga naasik mm. mooy kuy jël gàtt rendi ko saraxe ko mm. wala nga yëkkati sa alal mm. saraxe ko mm. ndax sëriñ Babacar dafa nekkoon koo xam ne masaakiin yeeg ñu ñàkk ñi ak fuqaraawe ak ay taami jirim yi moo nekkoon seen wéeruwaay ndax roy gi mu roy yonent bi sëriñ Babacar nekkoon koo xam ne doroon jàppale ñu ñàkk ñi di leen dumbale moom sëriñ Babacar di jaamu yàlla ci ci saraxe waaye di jaamu yàlla ci ay cëram te yonent bi noonu la meloon mu nekk koo xam ne zahidan zahid raagi may tarku zina mooy bàyyi njaalu ci sa bët bàyyi njaal salaam hawa haa gi mooy tarku hawa mooy bàyyi bànneex day daal gi mooy tarku dunya lépp sëriñ Babacar daf ko bàyyi mu nekkoon ko xam ne ne oustaz Diarra comme li nga wax si tarixe bi sànq bi ko xaaja Malick jàngalee ba mu am xam-xam mu ñëw mu jaayante moom jox ko tariq Sidi Ahmed Tidiane mu xaddamal ko dafa ko mu xaddama boo xam ne mutlaq lay doon nekk mu mu xaddam boo xam ne mu xayat la moo jox ko ndiggal mën ngaa ijaasal ku neex mën ngaa ijaasal jinne mën nga mën ngaa joxe ku la neex tarixa bi seexul xalifa fees dell ci xam-xam fees dell ci géeju sariya fees dell ci géeju xaqiqa benn bés bàyyam woo ko na ko Babacar kaay dama la soxla sëñ Babacar toog mu a seexul xaaji maali ne ko Babacar asawraani sairaani laa yebetaani fii marbati waaxid gis nga ñaari kuy mu ñoo bokk benn benn mbalk ko mooy ne daneen fëkkante daneen mbëkkante mu nga sëñ Babacar dafa yeewu mu xam ne papa daf na ko na génn mm. na ko papa naa dem Louga mm. na ko Louga dafa sori te dafa am muqaddam bu fa ne mm. bëgguma ngeen bëkkante fu mu ko wax mu ne ko foofu dafa sori dama bëgg nga jege ndax dafa am lu ma soxla ci yow mu ne ko bàyyi kon naa dem Rufisque may tëngeej fii foofu la seex mu ne ko waaw foofu baax na pour bu mën a soxlaa nga mën a jël terrain bi ñëw fekk si ma foofu la Serigne Babacar dafay xalwaam gu rëy googu xam nga oustaz Jara Serigne Babacar mos ngaa gis photo bu mu toogee ci suuf yombul de. Mm-hmm. man de ma ko. Mm-hmm. ca kaw rek. Mm-hmm. loolu bu nga ko jëlee ci xalwaam bu rëy ga mu defoon Rufisque. junnee guddi. la def xalwa ci di sikkar di jaam yàlla di tudd yàlla. mu jékki-jékki jaww ji fees dell ak parfum. mu ne parfum bu may xeeñ la niru na ma parfum yonent bi. ndax si Ahmed Tidiane ak yonent dañoo xet. mu ne parfum bu may xeeñ daal niru na ma parfum yonent bi lool. ba ci yàgg mu ne parfum bi neex na ma lool waaye jëmul le parfum bi bëgg naa xam kan la. mu jëkki jékki fii mu nekk fees dell ak leer mu ne dëgg dëgg nag leer gi neex na ma waaye jëmm leer gi nag bëgg naa koo gis ci la woy yaa kaamilaa googu mu jékki-jékki rek si Ahmed Tidiane jàkk na tëll jàkkaarloog Serigne Babacar mu ne ko xusli li yaddaa زلي يدا خذلي يدا خذلي يدا خذلي يدا خذلي يدا خذلي يدا خذلي يدا وصف شيخ صلى الله عليه وسلم خذلي يدا زلية سيد أبو بكر نينا شيخ زلية خزلية خزلية سيد أبو بكر نينا شيخ زلية أبونا أبو بكر وإن كان في القبر كوكو كوكوي mooy Serigne si Ahmed Tidiane si xam ne daa ñëw ak turo daa ñëw ak turam borom réel lépp moo wéy Serigne Babacar ndax nit dana nekk sa papa ba pare ngay am kersa ne mooy sa papa nit nekk sa papa nga kiy bëggee di ko tiitaroo xam nga maay sa papa wëlbatiku di la tiitaroo di la bëggee ndax rubal xarib baid waaye ruba xarib ruba baid xarib léegi-léegi nit nga jege ko lool fekk ci askan la nga sori ko lool waaye léegi-léegi nga sori ko fekk ne ku ko sës nga ci ruux Cheikh Sidi euh, Ahmed Tidiane si Al Maktoum jaxasoo bàyyam ci askan jaxasoo bàyyam ci ruux keroog ba Serigne Babacar génnee àddina hmm. ruuxam nga maam Khalifa Niass dafa toog na parfum bi may gis ndax ñëw neen teg ruuxu Serigne Babacar ci palaatu or hmm. ñëw di ko tàggee Serigne Babacar te booba Serigne Babacar génnagul àddina mu ne leen mbokk yi maa ngi dem Tiwaawan ndax tàggee leen ma Babacar te booba tàggee gun Serigne Babacar si radiyallahu anhu Serigne si Ahmed Tidiane si na aboona hmm. aboona Abou Bakir aboona sunu papa ji wayn ka ndax kii daal mooy sunu bàyyi donte mu ngi ci bàmmel oustaz euh, xam nga Seydina Aboubacar Siddiq moo dalal ñëpp bi yonent bi génnee àddina ñëpp ci jaaxle Seydina Omar njàmbaar gu da koo réer Seydina Ousmane noonu ñëpp seen njàmbaar daf leen a réer waaye Serigne Babacar bi Seexul Xaaji Maalik génne àddina ñëpp xel yi lëndëm neen tiit neen Serigne Babacar moo dalal ñëpp ñëpp ba ñëpp am équilibre te booba Serigne Babacar mu ngi toll ci 30 sept ans mu donn yonent bi doon turandoor mi si aboubacrine si dee mm-hmm. aboo naakon yow mi nga xam ne yaay sunu baay mm-hmm. aboubacrine yow mi nga xam ne yaay aboubacar mm-hmm. walaw kaana fil xabri mu ne ko papa donte yaa ngi ci bàmmeel comme sa jara wax na ko ne Serigne Babacar nekku ci biir bàmmeel yi mu ngi ci mii radina bihi cheikhan ila axiri euh, sang nga yàlla bu génn àddina rek dañ lay sang buñ la sangee lu ñuy def sang la bu la sàngee lu ñu lay def dañ lay. buñ la jullee fu la yóbbu. sëriñ Babacar nitu yàlla boo xam ne dafa génn àddina ñu sang ko sang ko jullee ko xam nga fu ñu ko denc ci suñu xol yi. moo tax kenn du ko faat Serigne Babacar ndox la te ndox nit mënu koo ñàkk ci dundam. lam yaskuro bil ayabi fi xabri ala man sakkanat quluba qalil la kon li nit ne Serigne Babacar. nekk na koo xam ne ku war ñëpp war a téye la rek delloo ko njukkal oustaz sant ko ci taxawaay bi mu taxawoon ci tariqa bi ndax ay rakkam ay ñëpp ko nangaloon ndax laaj abdu def na waqad wulitum iqdal xalifata yaafi an fa yàlla ka min durin yalux wala tibri kon yow sëriñ Babacar sunu baaja ba mu demee xoolul na bétu mag bétu sëriñ lan la xoolee laaji Mansour sama soppi ba jël na ay téeréem takkal ko sëriñ Babacar alaaji abdu cofeelam ci sëñ Babacar kenn mënu ko wax sëriñ Habib si dawal na sëriñ Babacar dix ans yoo xam ne moo koy dawalal otoom ngir bëgg sëriñ Babacar si bi sëriñ Babacar génne Cheikhul Hadji Malick génne àddina 1922 problème am na waaye sëriñ Babacar taxaw rek ca dogu ko am fulla ak fayda ak taxawaay na xam ne njaboot gi njabootam la ustaas te ëllëg yàlla dana ko ko laaj bala sa papa bàyyi njaboot gi noo doxele woon sëriñ Babacar taxawaay fa waa ajaban fa waa ajaban li cheikhi laqal salahat salaatul jaamiana waaw yoo amul xaadirina tabarakallahu eh, di di di di ziar yëpp rek eh, tabarakallah émission bi daanaka ñoo ngi waaj yëkkati jotaay bi mm. di wax ni rek comme ni ko wax sëñ maam sëriñ Babacar si léegi-léegi bi may fekk bi ko bi ko cheikh di feeñu noonu li yada muy tara an lana shamsul huda kashafa duja li man ihtada anil humama wa waadal marma waxat balagal mada fa tabarakallahu mu nekk koo xam ne ku jeexoon la ci cheikh ku bëggoon cheikhul tijaan la moo tax mu wax ne su ma doonoon doomu gàncax sax damay ne xalifa cheikhul tijaan wax nañu xalifa bi bi ñu ko koy jox cheikh Amar Fouti moo ko désigné ci kaw jël na xalifa bi si moo tax kii wax na ko danga nga wut dafa wutu Seydi Hadji Malick waaye doonu Seydi Hadji Malick waaw laaj bi waay na ko nga ko da nga wuutu wuutu ak doon du benn da nga puus mu toog daf ko wuut kon moom kan la doon rasulullah la doon kan la doon Cheikhuna Tijaan la doon mais Seydi Hadji Malick daf ko wuutu rek Seydi Hadji Malick dafa dem rek moom mu ñëw gérer affaire bi mu ci nekkee nag Seydi Hadji Malick kenn ku ne xaw a defoon ay alaaji Malick yu mel ni moom ay gay goy góor gi Amadou Wade góor gi Birageen Yoobe góor gi euh, Moussa Moussa Niang bare nañu bare nañ mën ne góor gi ne woon Thierno Ndiaye bare nañu ki ne woon Alfekki ñoom ñëpp nekkoon xaaji Alaaji Ablaye Sow xaaji ñëpp nekk ay sëriñ xaaj Maalik yu sotti keroog bi sëriñ Babacar si wane àdduna wax na ko léegi léegi bi Rasulullaay wane àdduna saxaaba yëpp dañoo gërëm mel ni Abu Bakar te boobu ma ngi ko fekk ci céetam nit ki ki nga gën a sopp booy génn àdduna doo ngeen fekkante ngeen ñaar ba Abu Bakar ñëwee ci la wax man kaana yaabudu Muhammad fa inna Muhammad qad maat wala man kaana yaabudullah fa inna allah xayun laa yamut afa ummit afum xaalidun kullu nafsin zaa'iqatul mawt ñenn ñi commencé dellu si waat keroog bi Seydi Seydi Hadj Malick nelawee ba demee ci góor gi Aliou Guèye moo ñu ko nettali nee na yi duñ doon jooy ñuy jël seen njañ yi di ko dugal ci biir suuf yi gars yi te seen bidig yi jaaxle ngir demu seen Hajj Malick waaye suñu maam Serigne Babacar ànd ak góor gi maam Khoudia Sy ni ko Ahmadou te Ahmad bu jur Maodo yéen ñaar bokk ndeg koo jiital seen Hajj ko dem gas bu suul ko dalu si waat mu dalal njaboot gi ñu hmm. soxloo ñi soxloo nekk xalifa général des Tidianes ñëpp bare nañ waaye proposé nañ ko Alaaji Mansour sax waaye moom dafa génn Tiwaawan bokk na ci ñi dëgëral suñu xalifa maam Serigne Babacar si suñu maam Serigne Babacar nekk multidimensionnel nag ku kenn mënul xaar bi mag ngi dajale ko ñooñu dañuy dajal sirage yi mu ni seen bàyyee nelaw wala sama bàyyee nelaw bu di jotee man Babacar dinaa ko dajal keroog Tiwaawan yaakaar naa kër goo taxaw yow nañ fa nag ngir barkeem waaye barke sirage Malick mu ne ci xalifa Cheikh Tijaan nag coow li bari ci ñenn ñi di bañ ñeen di diingat ndax ñëpp mu ñu laa nangul waaye boobu fekkee ne yàlla joxoñ na ko ñu la yow la ki yàlla joxoñ moo ko nit ñi joxoñ ki gi amul wàdd sa nguur mbuur bokk na ci ñu doon diingat suñu xalifa maam Serigne Babacar Sy mu jël benn lettre bind lettre bi ci loxoom mu ni fekkee xam naa ne mooy xalifa Serigne Babacar Sy dina ma tontu fekkee sëriñ Babacar mooy xalifa Cheikh Tidiane dina ma tontu. bu ko doonul du ma tontu jël lettre bind pare sànni ko ci géej gi sëriñ Babacar yabal benn taalibe jënam mu lekk jën mu lekk lettre gi te lettre bi tooyul lettre boo sànni si ndox xanaa mu war a tooy ah. Hmm. woo góor maam maam Amadou Kourdi Gaye ni ko demal ma mbuur di nga fa gis benn maire buy jaay jën mu ngi sol sàngam bari mel na nga jënd jën bi nga indil ma mu ñëw fekk meer bi di jaay jën bi maam Amadou Kourdi de mu ne ko jën bi laa bëgg mu ne ko temps la maam Amadou Kourdi génne xaalis fay maire bi maire bi jox ko jën bi mu indi ko ba ci suñu maam Serigne Babacar suñu maam Serigne Babacar jën bi génnee lettre bi ni du tontu jël lettre bi noonu la ko joxaate suñu maam Amadou Kourdi Gaye ko demal joxal ma ko góor gi Amadou Wade sa mbuur keroog bi mu ko indilee góor gi maam gi maam Amadou dafa tiit ba ni maam Amadou ko Gaye doo ma fi bàyyi damay dem Tiwaawan damay jaayante ci ndax kii ku jaayante wala moom perte nga bi ñu déparé ñëw ba Popenguine chauffeur bi bëgg nelaw bëgg a xaabaabal xam nga mbuur boo ñëw noonu mën nga mën nga xaabaabal dem mu jël ci loxoom teg ko ci loxo chauffeur bi di ko maa maqsadin Popenguine kallaa wala ngasa biir laakin Tiwaawanin maqsada arab dooma Popenguine dooma ngasam maa ngi jëm Tiwaawan bi nga xam ni kuy dégg dégglu arab boo fa demee xam ne déggoo arab dégg dégglu maa ngi jëm ci góor gi nga xam ne loo bare bare bàkkaar boo jàkkaarloo moom yàlla jéggal la say bàkkaar góor mooy kan mooy sa sopp mooy sama sopp mooy soppee Muhammad waaye mooy sopp sëñ Sam du sëñ maam Sëriñ Babacar Si kon nga xam ni ay mayam innal fadla bi yadillahi yuti man yasha wala zul fadl azim ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam te bu ñu toogoon fii di ko nettali fii la ñuy fanaan mm-hmm. waaye tamit mu jël yar ji aj maasu dafa ne bàyyam ba ما مد رجلي في خو اجتمع هكذا في خلوة من من خوف مولاه Alaaj ne sama baay Serigne Ba sama maam Alaaj Malick musul tàllal tànkam ci biir mbooloo musu ko tàllal ci biir néegam ñu ngi ko lu tax mu ne ngir ragal yàlla suñu yaay soxna asuka nee na suñu moom Serigne Babacar musul tàllal tànkam bu lemoo noonu ba toog ni mu toogee noonu lay toogee kon jikko yi newoon ci Serigne Hadj Malick moom la instauré ci suñu maam Serigne Babacar si kon fa tabarakallahu Hadj kontaan nañ bu baax a baax a baax xanaa balaa ñuy daana rek nga may ñu yaa raaxilan mu tasal ba bu ñu noppee rek ñu yëkkati jataay bi daanaka li ñuy cërloo woon ci waxtu bi mën na Mouhamed xoli sedd na waaye xaaji yaa ñu la nga dégg yaa raaxilan boo noppee nga doog a nuyoo bismillah ahmada ahmada tijaani على بجارها قدم الوجود ونعمتها الأكوان illa la sama waa ji mooy Cheikhu Tidiane Serigne Babacar Sy ne Cheikh Tidiane ya railal mutasabbih ar-rukbani نحو الجنان الروق والريحان سن بابكر سن شيخ هد القلوب كتب من أسير على أتل حاصل حواجز مدة الأزمان شيخنا التيجاني أد البيان لأهلها متزائفا بالوافدين والجملة السكان شيخنا التيجاني لا تقصرن توصلا وتدرعا وترقعا بالعين والتجان شيخنا التيجاني سلمى وسلم زيادة بتقرب كالزوي القرابة سايق أو تاني جرى سمام سرين بابكر سنة شيخنا التيجاني يوح بدت تهوي الوراء بتعين من كل ناء ناظر والآن سرين بابكر سنة شيخ التيجاني لتساسات أدواؤها وشآوها وتقوم بالأقطار والبلدان سرين بابا كرسي نينا الشيخ تيجاني كم شهدت أين الحقيقة أينه وتكشفت عن فاتح النوران شيخنا تيجاني شيخنا تيجاني شيخنا تيجاني شيخنا تيجاني سرين بابا كرسينينا هذا الذي إنسان أين حقيقة متشرفا بحقائق إرفان بقولك شيخ هذا الذي كان الممد وقائلا بيت الولاية فاتح البيبان شيخنا تيجاني هذا الذي ختنا لرد رضوانا علي بمنزل الآيات من القرآن ختم الولاية ما أفاق أمر به سقطن مامم ينتي الله مامات تمام داي بغ ستم لا تمام صدق يجر سرين بابكر سنينا حب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الناء والتين moom la doon tu baayam Seex Seydi Aaji Maalik ah. boo demee ca xilaas wa alama Allahu hadina nubuwwatahu wa kaana Aadamu bayna nafsi wa nasami ah. Seexuna Tijaani moo doon no maamam yant yàlla maam mat maam day bëgg sëtam la ca maam sëta koy jël huwa ah. majmahul bahrayni aynu hinaayatin بوراثة من منأة الرحمن وتواترت رتب له من بعد ما رتب بلا أسر ولا كتمان هو أحمد بن محمد نجل الولي مختار نجل جدي أحمد داني شيخنا تيجاني هو قدرة هو رحبة هو أمدة هو تقوة هو أقدة إخوان شيخنا تيجاني هو رحبة وهداية بداية وكفاية ومزية هو نعلة إن قد قصه المولى طريق شفاعة يقفي سلوك بحل عن البرآن جرك جقش طريق سيق بتخنغ من كان يدعو له ينال بشفاعة من غير عد الله ولا ميزان فصلاته بسلامه دامت على عين النعيم وصيد الآيان على الخلافة رأيت مولومي دفلني تقردين على الخلافة أتمنى damay naan ana taalibe Serigne naan ate leen ko wax leen jërëjëf Serigne Babacar Sy jërëjëf Serigne Babacar Sy yow la nu àndal yow Serigne Babacar Sy jërëjëf Serigne Babacar ate jara déglul ma wax la ba déggool ñëwee si Serigne Babacar Serigne Babacar déggool daa yónnee seeti Serigne Babacar kenn du Serigne Babacar déggool daa yónnee ñu seeti sëñ Babacar kenn du sëñ Babacar ñu ñëw ci ah. ne ko dañ ñoo yónni kenn du sëñ Babacar dégool nee na nga génn Ndakaaru ndax moom daal kenn du sëñ Babacar day waaja bombardé Ndakaaru kenn du sëñ Babacar te yow sa bakkan daa seer kon génnal Ndakaaru kenn du sëñ Babacar sëñ Babacar daal ni leen boo leen demee nel kenn du sëñ Babacar du ma jiite si si jàkka yi bëgg a jiite ci xol kenn du sëñ Babacar jara yow Xalifa Mbay way naa la jërëjëf la nu àndal Fall maam Serigne Babacar wóolu naa la jërëjëf Serigne Babacar si yow yaa xaw soo jërëjëf Serigne Babacar si xam na ne naa la jàppoot ki toole ji jëmm ak sama baat bi daal ak yow sama baat bi maa ko la ko adiyee jërëjëf jara suma feebare ay waay mbay lay way ma daal di wér aca man suma rafle ay waay mbay lay way ma daal di sol aca man suma banke ay waay mbay lay way ma daal di am ndax man moo ma doy fi moo ma doy fe maam yaa nu doy fee di la wóolu di la yaakaar jërëjëf sëñ Babacar. yaa ñu bàyyi la nga nuyoo tàggatoo. kontaan nañ bu baax a baax a baax ñu bàyyi la nga nuyoo tàggatoo ah, bisimilah Oustaz ñu ngi leen di nuyu bu baax ah. di leen ziyaara di leen wàccee seen wàcce waay mm. tabarakallahu di leen jéggalu ci yàq-yàq yeeg ñoom ah, yëpp macha allah macha allah dafay di nuyu ñuy suivre yëpp bu mag bi di mm. Salam mm. di leen ziyaara ni président beeg ñi ko jiite ñëpp waaye di la ziyaar yow Oustaz Diaw yow mii suñu bunt ci kër gi ziyaar la ñaanal la yàlla ndax wax dëgg neex yàlla taxaw nga ñu ci lu bëri bëri na ay xasida yoo xam ne mën nañ ko si sa loxo la jaar bañ mën ko. bu ko defee ñu ñaanal la yàlla yokk laa dëgëral taxawu la barke Seydina Muhammad. tabaarakallah di ziar tamit Oustaz Mouhamad. wax dëgg ne yàlla xam-xam gi leer na lool macha allah. kenn doyalul wax dëgg neex yàlla yal na yàlla barkeel moom it doolu laa dëgëral barke Seydina Mouhamed ni ñu xaas Lamine Ndiaye bi ma àndal ak sëñ Ousmane tabarakallahu di ñaan sëñ Babacar a dajale tey ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te dool di koy yërmande barke Seydina Mouhamed ndax comme ni nga ko waxee rek xale yi judd ci ginnaaw mbay te gisuñu ko yàlla dañ cee boole ñu sopp ko lool te fekkee dara ci moom tabarakallahu waaye yàlla mooy xool ku ko neex rek def ko ci xolu jàmm ñu judd it fekk ci suñuy waay jur ñu sopp ko ñu nit yàlla nampatal ñu si yi ñu ñaan yàlla yokk ñu see jàppale ba mission bu ñu bëgg a liggéey ak moom mm. ci barkeem jël ndaw yëpp nag mm. teg leen ci loxoom loolu mooy suñu yitte mm. ñaan yàlla jàppale ñu si barke Seydina Muhammad di nuyu waa jeunesse Tidiane yëpp nuyu waa Touba Pikine di samay waajur ak waa daara bi yëpp suñu imam yi ñëpp ñu ngi leen di ziar ñaan yàlla ah, a baax nga nuyu ñu ngi nuyu di am mbégte rek ci sunu soppe bi wala soppi yu toog. Mm. ci woy yi nga xam ne woy ne ko Serigne Babacar Sy. Mm. muy taw leer boo xam ne yàlla wàcc ne ko fi. Mm. yàlla bu mu ëmb waa Sénégal gi yëpp. ci wàllu wàllu salaam. di nuyu koo xam ne yaa ngi bàyyi xel seen télévision bu mag bi Salam Vision. di nuyu. di leen ziar bu baax ñu soppi si na Mouhamed yëpp nag. te kenn jiitu la ci stade Jara. ak soppi ak Serigne Sam. tabaarakallaa nuyu ñëpp. dem ba France nuyu sunu soppee boobu suñu paap di ko ziar bu baax ak sama turandoor Mouhamed ak muy juróom nuyu sëñ Moustapha Camara moom tamit France ñu koy ziar bu baax ak soxna Ndiaye ca France ak soxna Awa muy soxna ci sëñ Moustapha Camara ñu koy nuyu bu baax di ko ziar bari nga ay France France de <laughs> xam nga rek yaa ngi ko français. espagnol ñoo lay si. alhamdulilah espagnol tabarakallah. noonu dem ba marché nag Mame Mbaye Niang unité 6. unité 5 di fa nuyu nag soxna ay dara tabarakallah borom jàllaa bi rafet yi. ku bëgg jàllaa bi rafet oustaz. naa nga dem fa. waaw tabarakallah sofi si na ma. di nga fay ko fay de. waaw ñu ngi nuyu ñëpp tabarakallah oustaz Mouhamed Thiam koy nuyu bu baax di ko ziyaar suñu yaay PNC di ko ziar mm. tonton Serigne ca baax ñu ngi koy ziar bu baax ak waa mm. Fadia yëpp soxna Mariama ñëpp mm. ñu ngi ziar de ziar na oustaz Jara di am mbégte ak kontaan bu baax wasalaamaaleykum ah. wa rahmatullahi wa barakatuhu kon fa tabarakallahu kontaan naa bu baax baax xajeya di suñu rak di suñu xarit waaye di suñu sopp xaaj mm-hmm. Lamine Ndiaye xaaj Oussou daanaka maa ngi ñoom ñoo dëkk dam leen di ñaanal yéen yàlla gën a guddal seen fan mbaax bi ngeen wax yëpp ci yéen la nekk yar ngay wax Mouhamed ci yow la nekk ndaxte ci jaamu yàlla la ñuy duggee àjjana waaye ci teggi nay gisee yàlla wa zeynul fata baanama toqa adabun wa ilmu islahum bihi yadurru kon fa tabarakallahu kontaan nañu ci disponibilité bi ñu woo la nga ànd ko ñun xajiya kontaan nañu baax a baax ñoo ngi lay ñaan yéen yàlla gudd sa fan xaw ma kan la xolam seddul mais man sama xol sedd vraiment kontaan naa baax a baax a baax a baax Hadj Mouhamed ñoo ngi lay ñaan yàlla yàlla guddal sa fan nga xam ne ñooy fas fas yéene di di nuyu fa tabarakallah ma koy faral di waxee rek sëñ moom Ousmane si Dabaax sëñ Moustapha si mu sëñ Abdou Al Amin responsable moxtar leen rek yàlla yàlla doon leen taxaw yàlla leen dëgëral bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu sëriñ Njaañu Bousso nekk ba Mbàkke waaye nekk fii Kër Massar nekk ak yaayam ju baax jooju di aada du fàtte galas nekk ba Italie soxna Daba Ñang nekk ba Italie ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziare di leen ñaanal du ma fàtte Soda mu sëñ moom it Papa nekk ba France wa tabarakallahu ñaanal leen ñoom dañuy saxaw di ànd ak ñun ci émission bi ko seetaan di leen ñaan yàlla yàlla gën a guddal ma fàtte sama jarbaat bu bopp nag di soxna Kumba ko ñaan yàlla yàlla gën a guddal dama fàtte sama soxna nag baax lool yërëm suñu yaay jur ànd ak moom di soxna jag nekk ba dagana ñaan na ko yenn yàlla gën a guddal fanam waaye du ma daaneel mukk te nuyu ma fa tabaarakallaahu fi nga xam ne moom lañ defee émission bi di suñu papa papa Dramé ko ñaanal yàlla guddal fanam waaye di nuyu soxnam soos di suñu yaay Penda Seydi di taaliba baaba kër si sopp ko lool di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam soxna Aïssa Diop taalibe Serigne Babacar boobu Ompagne Daba taalibe Serigne Babacar boobu soxna Maama Dieye ak mboolem koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun dama fàtt nag fa ñu Moussa Jara yi nag jël naa nuyoo bi teg ko ci loxo Thierno Jara nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp baalu ak naa ñëpp seen émission bi tey fii nga ko defee fii ci Salam Vision di spécial plateau Serigne Babacar Sy le 25 mars di ko ñaan yàlla yàlla sopp la ñu ko dawoon heure bi nag yàlla ñu fekk ñu am suñu télé bopp bu mag a mag a mag xam ne dañ koy def jotaay bu yaatu yaatu xaja mu fekk la Europe bu fekk maamaa mel Europe nga war a jël vol nag ñëw ñu defee ko fii xaaj xaaj xaaj sëñ Sam taaliba sëñ Umu Cheikh Umu Mbàkk bi xéwal yi gën a yaatu gën a saw gën a baawal tabarakallah di taalib maam borom Tuubaa waaye yaatal nag yaatal nag di borom vision nag su ko neexoon mu ne fii laa far wala faa waaye ñëpp ñëpp ko ñor ñëpp ko ñor te doo wax mukk mukk mukk ba mu xaw ci sentir blessé fa tabarakallahu tey da gën a ñu ànd ak ñun fa tabarakallahu ànd ak ñun si émission yi di ko ñaan yéen yàlla gën a guddal fanam yal na yàlla gën a teg ci loxo ci kër gi kër gi yal na ci yàlla gën a teg loxo bàyyiwuñu kenn képp boo war nga si mën a dugal sa loxo ci kër gi ci baani bi la nekk rek nga dugal sa loxo ñoo ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw waaw ñëpp day ñëw incha allah rabbi wasalaamu aleykum wa